waa dello siyaar sant yàlla bu wér a wér waay Bass yéeg def prestation boo xam ni Bass dafa mel ni jigéen ñi rek la gën a visé ak xale yu ndaw ci musique am ndax booy ba moo ko lay mais loolu du maa ko visé xam naa yàllaa ko tuddee noonu rek waa noonu la demee daal yee Bass ñëw créé propre répertoire ba ah. ak ay moom même mode musical ak même mode danse waa loolu rek nit moom da ngay am sa isilu bopp waa man loolu laa préféré ko ñëw am sama touche bopp am loo xamante ni carrément ku gis dina xam ne lii Bass Thioung la waaw man ci loolu laa ne daal parce que gis nañ 31 décembre ba kii ak ni nga mel ak Wally Ballago te gisuñu le grand théâtre. non dama demoon joué ji euh, Tëngéej laa nekkoon dama demoon joué ji stade Ngalandou Diouf contrat la woon looloo tax me Wally sama mag la sama xarit la sama lépp la fu mu xewle maa fay jiitu. par yenn waxkat yi commencé nañu jàpp ne que y' a rien sa digganteeg moom wala y' a dara musul xew dara du musa xew man sama yoonu bopp laa nekk. aw ma kenn problème samay mag dama lañ jox cëru mag samay papa jox lañ cëru papa man new ma xale yooyu tey ji xamante ay musique concurrence man concurrence aw ma kenn bañ naa ba sama musique bokkul ak musique kenn te su ma amoon ñu ma bokk sax maa ñoom dañuy sekk jaamu sekk saam ndax fu ne ku sa jël affaire bi jéggi la ku ne da ngay tànk waali sama mag la sama xarit la sama lépp la moom bëggul lu dul xale buy avancé xale buy liggéey am fula am fayda Euh, maanaam est-ce que warul mën a mën a ñàkk bu fekkee bëgg nañu musique avancée. waaw lépp mun naa ñàkk ndax àdduna du dara te fii lépp mun na nice quoi waaw parce que tey jii ñun xale yi tey jii bu fekkee conflit dafa am bu ñu gisee tey bas si kii bas am nag jàmb kii jékki-jékki gis bas tamit kay woo ko invité ko mu dem si kii après kay mun na ñee mun nañ la mere ñee mere loolu mun na ñàkk quoi parce que ku ne ku ne da ngay musique. na fi naan yu bari ah. waaw loolu laa expliqué parce que xam nga tamit ñun ay xale te ñun ñooy seen ay rax ñun ñoo gën a ndaw si musique bi amuñoo problème ak kenn des fois ndeysaan mën na gis sax boo demee si kee kee foog ne am nga problème ak kee boo demee si kee fekk foog ne am na problème ak kee te amaana benn problème amul. finalement da leen di indil problème sax yéen parce xam nga ñun ñun a far. tey jii nii muy musique bi képp ku fi nekk man tey gis nañ ma fi dañ ma woo ma ñëw waaw demeewul noonu parce que loolu contrat la woon su ma nekkee si contrat damay dem liggéey sama contrat loolu kasa la. mais affaire bi du fan si yi quoi ah? est-ce fan si des fois ñooy. waaw xam man loolu moom ah mooy li ma si wax rek li ma si mën a wax mooy àdduna amul sol parce que tey jii kenn bu jotee waal euh, muy Paa ji Waale muy Pape Diouf suñu papa muy tey jii suñu papa Thione ak képp ku si am problème xale bu si dugg bu ñu jubóoyee ku si des yaa si des àdduna te jii foo gis problème sa xoolal mu rafetee nga defar ko mu rafet parce que tey jii Waale ak Pape Diouf war nañu mën a def son mu nice Sénégal la Wally yàqul dara Pape Diouf Pape Diouf yàqul dara Wally nag ku si sa public ku si sa style ku si nekk ak tam bëgg man sama xalaat laa joxe rek amuma kenn problème jotewuma kenn man fépp laa am ay nit ñëpp ma bëgg ñëpp laa sekkal jàmm ñëpp laa am fu tey waa ji bu Wally kenn mënti xewle àdduna amul solo te Wally tey ji sama diggante ak ñoom leer na ñëpp sama diggante ak tam Pape papa Youssou Ndour àdduna amul solo keroog Colobane contrat la ñu amoon dem jouer suñu contrat pare dem jeu ji yëmbal contrat lañ fa amoon tamit loolu yéegu leen ko dem nañ jeu tam Tëngéej stade Ngalandou Diouf man dip Samba Pesé parce que tamit muy Pape Diouf bëggul xale bu ava lu dul waale bëggul xa lu dul waale xam naa ko bu baax ku gëm boppam la bëgg kuy avancé ba ma fi toogee kilibo ma di yëw dafa ma ne dama la mere ndax kilibo kon tey ji bu gisee Bass Thioung tey di dem di dóor fii di dem dóor la gisuma ko su ma gisee xam naa li ne ci moom billaahi wallaahi taalaay nit ku baax la Waly Seck Pape Diouf tamit nit ku baax la Youssou Ndour nit baax la Thione Seck suñu papa nit ku baax la yàlla ñëpp am jàmm ndax aar bi ñëpp a ko bokk yee yee yàlla ñëpp am jàmm